que tey jii convoi bu ñu dajeel nañ leen affronter attaquer leen parce que loolu loolu bi ngeen koy teg ak bi ngeen koy def da ngeen yaakaaroon da ngeen koy def noonu rek après su ngeen ci pare yéen pare ngeen léegi nag seen gat moo ciy daggee yow moom nee naa la après élection yi di ngeen dégg ne Barthélémy Dias convoqué nañ ko arrestation taxaw na parce que li mu yaakaaroon ak li am dafa wute. li ngeen yaakaaroon wallaahi ak li am dafa wute moo tax ma ne leen yàlla sunu borom du nit yàlla sunu borom du nit heure bu ngeen demee ba taxaw ba yaakaar ni yéen pare ngeen pour déstabiliser président Ousmane sunk bisu keroog boobu noonu chaque jour sunu borom di leen gën a toroxal ngeen koy gis bis bu set yàlla wan leen ko yéen à ce seen soxor ak seen iñaan ci askanu Sénégal man mooy sama problème. parce que dama ne yéen nan ngeen mën a nekkee ni yéen ay sénégalais ngeen ba pare amoo leen yéene ci biir Sénégal ci askanu Sénégal souffrance bu metti bi ñu yàgg dund li ñu li ñu Macky Sall teg li ñu fi ab Ablaye Wade teg loolu noonu yëpp 1960 ba tey ñu dem tey jii ba am suñu indépendance tey ci 2024 bi ñu fi tëbalee Macky Sall askan bi jóg taxaw ne dañoo bëgg a defaraat réew mi jël suñu lépp moom ko teel ko sunu bopp. yeen ngeen taxaw ngeen ne gars yi bu ñu leen bàyyee opposition dootul amati fii léegi nañu teel a këpp ci cere ji suuf comme ça bu ko defee coow li jeex ñëpp mën cee dugg parce que loolu mooy seen yéene loolu mooy seen bëgg-bëgg loolu ngeen yàgg a rêvé loolu ngeen yàgg a teg ngeen yaakaar ni tey yàlla dina tëj buntu tëj fenêtre wallahi xamoo leen askanu sénégal la yalla sunu borom dimbalé ñun ñoo pare pour accompagner projet bi and président ousmane sonko mais touti ngén ci yeen yeen ñi nga xamné ne gëna touti touti ngén nan tay ji da ngén di andi lenn luy déstabiliser dëkk bi yeen xamo leen sax li ngén dugg wallahi li ngén dugg xamo ko li ngén dugg xamo ko parce que da ngén ni di ngeen teg seeni stratégie ba mu jeex tàkk te amul koo xam ne nii tey yàlla dimbale na dogal na ci moom mu bëgg Sénégal bëgg président Ousmane Sonko ngeen teg seeni plan wax la ngeen di wax yépp tëral ko rien ko pour ne yéen nan ngeen mën a def tey jii ba attaquer président Ousmane Sonko physiquement yéen li ngeen soxla woon mooy jëmmi président Ousmane Sonko mu ngeen mën a def pour éliminer ko parce que yow yaay jaay fit da ngay yor arme. léegi loolu doyatul nga ne yow da ngay jël arme yoo xam ne nii police ak gendarmerie ñoo ko moom yow li police ak gendarmerie moom yow loolu nga dem jël dem jox ko ñoo xam ne duñ ay policier duñ ay gendarmerie bokkuñ ci armée bokkuñu fenn nga jël arm yooyu jox leen ko ne leen yéen ku leen laal wala ku leen jege wala convoi bu ñu dajeel wala ku ne sonko sonko nangam leen ndeyam noonu nga ko waxee noonu nga daggee say saaga teg ko. pour rien que nañ ko nañu attaqué léegi nga yaakaar ni loolu da nga def noonu rek après war a mën a toog dara du la ci fekk si sa gaa yaa ngi ne noq nañ leen ci kaso bi lan moo tax arrêté wuñ arrêté guñ la élection yi moo tax arrêté guñ la Bartha man maa la may loolu noonu tey arrêté guñ la xam nga li tax arrêté guñ la parce que élection yii nii moo tax ñëw na ba pare ginnaaw suba. après élection yi ñepp sénégalais yi xippi leen seen bëtt patriote yi man maa leen ko wax après élection yi ngeen dégg ni Barthélemy Diaz arrêté nañ ko arrêté nañ Barthélemy Diaz après élection yi ñëpp dinañ ko dégg parce que da ngeen a yaakaaroon ni xëy na da ngeen di nekk ci dëkk bi di troubler di def lu leen neex di fonto nit ñi di fay suba ba ngoon jot di monter di fen di sos ngeen yaakaaroon loolu moom mooy continuer loolu c'est fini jeex na loolu c'est fini jeex na comme yow yaa doon wax naan def li ngay def dem tëdd kaso du dara ci yow waaye léegi def nga li nga doon def parce que jël nga arm yoo xam ne illégal la waroo ko woon a yor léegi nag arme yooyu ci boppam lan leen santoon wax nañ ko téléphone yi amoon téléphone yee yooyu noonu jël nañ ko léegi nag li ci des mooy élection yi jàll ak jàmm gaay yi dem convoquer la yow sa jëm bop laaj la fo jëlé arme yi ak ban autorisation nga am pour jël ay arme yo xamné ne wona ko wona yor dem diko jox ay nit yo xam duñu police duñu gendarmerie duñu gendarme arme yi nga jël da ko jël ba pare te waroko ko wona jël arme ya kan mo la ko jox bu fekkee arme yi Macky Sall jëndone yobula yobuko palais gars yi dañ koo paccoo jox la moitié bi jël moitié bi arme yooyu ci boppam enquête bi gars yi seen jëmmi bopp xam nañu lépp moment yii nii lenn rek a tax arrêté guñ la lenn moo tax arrêté guñ la mooy élection yi après dimanche ñu génn ci élection yeeg jàmm ngeen dégg convocation Barthélémy Diaz sa convocation mu ngi ñëw léegi yàggatut parce que li ngeen yaakaaroon ak li am ak li yàlla suñu borom def moo wutee jël seeni arme jox ko ay nit taxaw ne dangeen di déstabiliser réew mi da ngeen fii créer ay problème yoo xam ne nii élection du am parce que loolu moo nekkoon seen stratégie li ngeen di xëy suba ba ngoon di saaga président Ousmane Sonko di wax ak attaqué loolu rek intéressé wu len won de li len gënonu intéressé moy nan ngeen def ba jema def tout pour élection bi am motax fi fii bi may ñaan naan bugaan dey dani patriote yep la ñaan kenn ku nekk life lay fee waxal nañ ko libéré bi mu Tamba parce que dafa am lu wara lèr dafa am lu wara lèr pas nañ parce que li ñuy def ni yep bañoon dem ci ay élection mom lañ doon def ñom ñëpp. bañoon a dem ci ay élection moo tax ñu doon xataraayu suba ak ngoon bu dégg bëccëg mais léegi yàlla sunu borom leeral na leeral na yëf yi carte gi ba mu leer naññ ku ci jóg wax sunu borom xëy suba balaa ngoon a jot sunu borom weer la sunu borom weer la nga weeru suba teel léegi nag tey jii ray gi ngeen doon rey ak li ngeen doon def bay wax naan am na koo xam ne sëriñam daf koo laaj siis néew. six néew yooyu noonu yëpp lan la mooy li nga bëggoon a def parce que six néew yi weesuwul nga dem jël ay arme lu yoo xam ne waroo koo yor di ko jox ay nervi ba pare jox leen autorisation yow pour wan leen ne leen carrément tey jii ku ku ngeen jàkk jekku def leen ko noonu li tax gars yi am fit dem di jël jaasi di gor loxo jàmbur noonu di ci gor ay nit di leen gaañ kon kay ndekete wax ji dégg-dégg la laaj. wax ji deg-deg la laaj la tax gaay dem de gor moy yow mi sa jëmmi bop boy wax maire Dakar dafa am ño xam dañ ko bëgg récupérer ndax yow leer na la ne bi di ko nokk ñak ndax buñ la ñuusee ci kasso bi buñ la nokké ci kaso barkle min Dias moy yow pare nga ci maire de Dakar parce que affaire de banditisme nga fi bëgg andi mais lolu nga bëgg andi nonu modul doh. dox moo tax nag ma la préparé wul sa sa sa sa sa sa say bagage takal say bagage ndank ndank commencé tàggoo sen wa keur ta xamal la ne yow sa jëmmi bop ci kasso bi di nga fa dem après élection yi ça c'est sûr et certain sa sa chambre mom préparé wul di nga dundaat bu tang bi ci bir prison bi parce que amo droit dem di jël arme la wax arme est-ce que xam ngeen arme yu police war a yor war a gendarmerie wala armée nit dem jën ko di ko jox ay nit yoo xam ne ñu ay homme de tenue di leen jox autorisation wu carrément ne leen man maa leen jox ndigal ba pare di dagg saaga ndey di ci teg di dagg saaga ndey di ci teg ku ngeen jekku nangamtaan leen ko parce que li nga soxla te bëgg ko loolu nga doon opté pour def ko ci askanu Sénégal yàlla sunu borom moo weddi yàlla sunu borom moo la wane ne la yaw du yow yaa yor bakkan ba war koo jël wala du yow yaa war a joxe bàkkan yàlla moo mooy wane boppam moo tax li nga def nii moo waat sa kaw wëlbatikuwaat tey jii ci kaw ñi nga àndal ñi nga àndal tamit am nañ fulla ju mat sëkk ni du ñu dem tëdd ji prison yow di la bàyyi ngay dem di tëdd sa kër di taal kilim moo tax ñoom liñ leen laaj lépp question par question tontu nañ ci enquête bi question par question tontu nañ ci yaa leen jox ndigal yaa leen wax na leen ku ngeen jekku def leen nàngamtaan leen ndeyam lan leen doon fay par journée lépp wax nañ ko lépp lañu leeral alam zo maa ngi ziar lépp leeral nañ ko ndekete yow yaa leen joxoon ndigal reeka pour ku ñu mën a rey nañ ko rey kon que yow mii doon wax naan maire de dakaar dafa am ku ñu laaj néew dafa am ku ñu laaj lii ndekete yow néew bi ngay wax ne dañ koo laaj néew boobu yow yaa ko bëggoon a jël rey askanu Sénégal parce que ñi nga jox arme yi ci jëmmi boppam dañ leen a wan ne leen carrément yow autorisation nga am autorisation nga am xadi ça autorisation nga wane ni yow da am sa autorisation bopp bu la permettre yow.